li nga xam ne moo tax ñi convoqué point de presse bi mooy ñun dañoo jàpp ne nit bu fekkee da ngay ànd ak moom des fois da koy xaw a nawloo nawloo bi moo di nit bu ànd ak yow 12 ans yaakaar naa le minimum mooy da nga ko war a di gëstu des fois xam ca la mu nekk ak xam na mu toogee mais ñun nañ dañoo considérer que dafa am benn euh, ignorance wala soit benn benn manque de considération boo xam ne suñuy autorité dañ ko ko def que soit mi au niveau de Benno Bokk Yaakaar que mi mooy niveau de l'AFP ñun nag ñu ne nag dañuy jël suñu responsabilité parce que ñun mënuñu nekk ay jeunes di coordonner ay mbir di nekk ay nit di dem di wax ak nit ñi mais à chaque fois suñuy leader ñun dañuy bàyyi ñun ñuy suñu bopp. bu fekkee nag mënoo defal dara sa askan dafay baax aussi tamit nga taxaw pour mën a xool exactement loolu moo tax nag ñun ñu jël suñu responsabilité ñu ne désormais bis ni tey ñun dañuy démissionner fi nga xam ne mooy AFP ak poste yëpp yi nga xam ne jox nañu ko au niveau départemental ñu delloo leen seen yëf ñaareel ba si ñu démissionner au niveau de Benno Bokk Yaakaar delloo leen seen yëf. ñun nag ñi am beneen vision ci politique yàlla def na nag ñi am koo xam ne ñun gis nañ ko mu nekk ci terrain mu nekk koo xam ne ku am am abnégation la ku bëgg a liggéeyal Sénégal la ñun nag buñ ko gisee ñu épouser ko mooy lan mooy ki nga xam ne mooy Anta Babacar Ngom. bis tey ñi démissionné pour mën a dem liggéey ak Anta Babacar Ngom parce que kenn umpalewu ne Anta Babacar Ngom liggéeykat la xale la mën na mën na mën na yóbbu réew mi foo xamante ne nit du ko foogee parce que industrie lañ xam. am nañ yoo xam ne jot nañ ko fi def ci réew mi loo xam ne ñu ngi koy gis ñu ngi koy teg ci ci loxo donc na kooku bu fekkee jóg na ne dafa bëgg a jël réew mi ñun suñu wareef en tant que jeune bëgg réew mi te bëgg liggéey réew mi ak suñu askan li ñu war mooy ñi ñëw mën ko rejoindre pour mën a liggéey ak moom loolu moo tax ñu décidé ñëw tey ànd ak Anta Babacar moom pour liggéey ak moom réew mi mais tamit demuñu fa pour ay poste de responsabilité yooyu waaye politique tam am na nu mu bindoo parce que nit ki bu fekkee dangay dem ci moom aussi dafa am looy séntu ci moom li ngay séntu ci moom mooy jàpp ngeen ne yenn bokk idéologie ci li ngeen xalaatee li doxal réew mi loolu moo tax nga koy ngay ànd ak moom mais leneen la ciy topp yëpp loolu peut-être mbiri àddina la. sama Kër Massar bu fekkee dañ ciy wax comme ci lañ nekk fu mu toll nii yaa dafa manqué lu bari ci wàllu infrastructure ci wàllu tali ci wàllu ay aménagement yooyu yëpp lu fi manqué la soo xoolee buun bii nga xam ne ñun moom la ñu nekk amul benn assainissement. d'abord Mbour ne même pas loti donc nag bu fekkee dama koy wax dama koy ne sànc yi nga xam ne bu njëkk fii mooy d'abord na jéema a zone yi nga xam ne peut-être defuñu amuñu assainissement deuxièmement ñu mën a lotir ba pare def des infrastructures et penser aux couches vulnérables